rek. moo tax man la sànkoon ma ba réveil. loolu jàmm soriwul xuli bu méttee bu jaree bale na ma bale leen rek. yow réveil ñu lay waaj a def constant ngay toog sa ci àdduna bu méttee rek lu baax du dëgg. mais bu bu bu bu naree tardé keppaar ba keppaar. ba réveil ba keroog ba yàlla lay def kii. yow keppaar da ngay tardé yow fépp da ngay tardé. bu méttee nu toog bos. lu nu am muy sunu wërsëg du nu tardé. kenn du ñu mere. déedéet doo tardé. Ah, doo tardé nuyu nañ la bu baax mais mais mais mais nag mais nag da ngay mais nag da nga ñuy da nga ñuy boycotté nag très souvent fajar gi nag di def di def tuuti effort nag ah. damay guddee. waaw buñ la convoqué nag yow tamit nag. damay ah. damay guddee. waaw c'est vrai mais defal tuuti effort rek du loolu. damay guddee tuuti effort rek guddee bi la. xam nga ñun tamit ñu ngi nii ay jigéen lañ. ginnaaw teg nañ ko ci kaw quatre heures du matin la ñuy yeewu ci suuf ma wax la leneen. waaw waaye comme teg nga ko ci kaw. ma <laughs> yemale ko foofu damay guddee kon c'est toujours un plaisir en tout cas di jàkkaarloog yow. kan moo def ban journal laa gis ñu wax waxi Jean Collin kii. mu ngi nii waaw waaw Walf Quotidien la mu ngi nii mu ngi nii Walf Quotidien. ah Walf la. oui bu bu ñu mënee am kii bi. Euh, ma xool ma xool. Serigne mën na la ko jox sax en image. mooy les pouvoirs Walf euh, Quotidien titre Walf Quotidien lay bon xam naa xam naa Walf de. daaw nu def ni nag xëy na xëy na bu ma liiree journal bi dinaa xam dinaa xam. mooy li ñu euh, ci njort rek ah. moom ci à Ousmane Sonko Jean Collin ressuscité. Mhm. écarté de la présidentielle du 24 mars passé nangam nangam en fait <coughs> bon. Hmm. je sais pas si c'est une comparaison ou une métaphore. parce que man foofu laa bëggoon commencer ak yow sax. parce que ah. waaw. bon da sama lanc rek. xam nga xam nga dafa am euh, super dafa am super pouvoir wala c'est un superman. ba ñu wal fajri nag ay ay borom xam-xam dañ fee bari moo tax teggi lu nu wax daa metti ay seeni jóob ak. ay borom xam-xam dañoo bëri. ay ñoom Ibrahima li nu wax moom pour nga tegg faw nga gëstu ci. mais par contre. relativement. Hmm. relativement. Jean Collin ci Sénégal. Euh, du c'est pas l'exemple tentant comparativement vis-à-vis de la personne joxe sa xalaat Ousmane mhm. Sonko am nga droit joxe sa xalaat mhm. man xam nga noo fere gagnant loolu awma ci problème mais dama bëgg a wax ne au-delà de de de l'entendement parce que foog nga lire article bi yëpp ba mu jeex peut-être que am na foo xam ne boo ko fa tegee rek mën nga dégg fi ñuy waxee tout à euh, nga dégg fi ñuy waxee dans le sens où ah que nekkoon Jean Collin nekkoon l'homme fort au temps du président Diouf. Diouf. sauf que laata sax le président Diouf. Mmh. Jean Collin était l'homme du président Senghor mm. relativement mais surtout. Mm. au côté de Mamadou Dia. dans le temps. Mm. Jean Collin bi bokk na ci ñi doon liggéeyal France dëgg dëgg dëgg. bu mag a mag sax baax sax. Mm-hmm. boo delluwaatee ba ca ginnaaw. Mm-hmm. la yàq diggante Léopold Sédar Senghor ak Mamadou Dia. la ca biir baa ko daa xam ni tubaaba mën a liggéey. Mm-hmm. ci li mu bëgg a def. Mm-hmm. Mm-hmm. parce que bi ñuy jógee indépendance di wàcc di ñëw. tubaab moom musul gëm ne Sénégal bi non jox naa ko indépendance dem leen. dem leen xam lu mu gëm. bon ok xaaral ma jox leen ko. ci mai bi mi na accompagner. récupérer ko ci fii. da nga wax bi. waaw dina toog bu baax. <laughs> jàkkaarloog caméra ñoom ñooy doxal de ñooy organiser. oui alors je veux dire une chose simple le Sénégal vient de loin Aïcha Seydina. Mm-hmm. de très loin. gis nga boo waxee souverainisme. Mm-hmm. wala nga ne souveraineté. Mm-hmm. Seydina day d' accord Pa Assane d' accord Aïcha d' accord. mais dina am benn mbay njaay pata pata bu nekk à côté. bi arrangé day yàq diilam. riir bi yëpp. di ngeen dégg ñee ñii nii gauche ñii nii fee non non kii riir bi yëpp xamalal la. Hmm. parce que souveraineté bi am na ñu mu arrangé wul tubaab ak ay complice te xam naa amaana boo liiree journal bi boo demee ba ci biir certainement daa ci gis loolu. Hmm. ndax Walf xarañ xarañ nañu. tout Jean Collin mënul bokk ak dara tarfatal ay ni kii di Ousmane Sonko du nuroo du lenn. Sénégal mooy dox ci benn contexte Aïcha dafa am fu nu nekkoon am fu nu jóge am nu daan dundee kan moo njëkk a jiite Sénégal Léopold Sédar Senghor il était qui c'était un jóge fii dem jàng bi mu ñëwee Lamine Gueye moo ko dalal won ko dëkk bi ne ko mbir yaa ngi nii intégré ka mhm. xàllal ko yoon mu dem jàng ci tubaab bi tubaab bi def ko fa ministre. muy liggéeyal tubaab bañ demee boo def indépendance tubaab bi indi ko fi mu ñëw dugg ci politik bi taxaw Lamine Gueye mettre ko à l'aise kooku la njëkk a war. Mm-hmm. comprendre nga. Mm-hmm. parce que tubaab am na ñu ma naan bàyyil tubaab yi da nga paxanoo man leen billaay bu ngeen xamoon li ñuy daj ak li ñoo def. Mm-hmm. xoolal xoolal xoolal xoolal ce qu'ils son en train de faire au Niger xam nga lu ñu def Niger. Hmm. comme dàqee nañ la fa. dàqee nañ leen fa. Niger am benn pipeline bu ndaw buy jóge ci dëkkam di dem bene xam nga lu tubaab yi def. Simping hmm. dem Chine dem France visitam bii semaine bii. oui Macron dalal ko ñu nekk fa di waxtaan. Hmm. nekkate Macron rocceeku na am ku mu sant ne ko wool Patrice Talon. mu kaabale ñaari fan lañ ci teg rek taloo daal di jël décision daal di tëj loolu Niger doon séq ak moom tëj fekk na Niger tëj na frontière parce que Niger dafa jàpp ni France boo ko dàqee ne day wiiri mm-hmm. mu tëj malgré tout nag mm-hmm. mu seq économie ak comme pays frontalier yi la mm-hmm. Niger ak benn seq économie mais xoolal africain yow tubaab bi nekk fële ne la non bloqué sa waay nga bloqué ko yow africain et talon qui sort pour parler de li ma xaw a jaaxal xaw ma cee metti nag malheureusement te loolu xam naa ne suñu baay bi sunu kilifa bi Boubacar Camara bu mu déggee di amaana mën nañu ci dimbali. moom comme day liggéey ak Patrice Talon. Mm-hmm. loolu ce serait bien mu jàppale ñu ci wax nu réellement c'est quoi le problème. parce que parce que France dafa am ay éléments ci biir Sénégal ci biir Afrique dafa am ay éléments. ñoo xam ni ce sont des éléments. barke démb jàll ci embargo Mali ku ko def. waaw waaw léegi léegi su fekkee ne que africain bi moom dafa bëgg a suqali dëkkam. Mhm. man ak yow ñu séq mais tubaab bi ñëw ne la non bu koes ko. koes ko yow nga nangu koo koes te moom tubaab bi mu ngi dem naan waa Europe woy foog ñu dajaloo. Mhm. foog ñu booloo. xam nga loolu moo di musiba maaba kumba looloo loolu moo moo jur lan doon dund démb. lañ doon dund dund démb c'était quoi mooy tubaab tegal la fi benn nit kooku nga yaakaar ne yow lay liggéeyal fekk tubaab lay liggéeyal. Mm-hmm. mu tourné et comme par extraordinaire ki ñu gënoon foog ne mooy liggéeyal tubaab xam nga kan la. Mm-hmm. ki ñu ko gënoon foog. Mm-hmm. Abdou Diouf la. et pourtant c'était pas le cas. c'était l'un des plus sénégalais contrairement à ce qu'on parce que ba muy ñëw fekk na Senghor moom la mu géré woon la yàlla xam doy na économie bi doxul sécheresse la ñu jóge tubaab bi ñëw dóor Abdou Diouf lu metti xam nga mooy lan parce que Senghor ba muy dem. dafa bëggoon Abdou juuf continuer liggéey bi. Mm-hmm. Abdou juuf ñëw désengoriser. ay éléments Senghor mu teg leen nale mm-hmm. loolu metti Senghor. tubaab yi dal suñu kaw. prétexte lu leen neex FMI banque mondiale ak euh, nu mu tudd les institutions xam lu nu wax ñu ne ajustement structurel da ngay tabaxaat mu dem ba ñu tëj suñu raay bi gis ngeen raay bi. raay bi tubaab bi ubbi woon tubaab ba mu ko ubbee économie moom moo taxoon ba mu demee ba soxlaatuñu gis ne Sénégal bii di Abdou juuf mu ngi bëgg a dem fee dafa mel ni kii dafa mel ni ku xaw a ñu tegal ko ndëgg sërëx yi looloo jur ñuy toog suñu bàyyeeg suñu maam suñu tànteek bàjjan yi naan eh yéen seen njool mii papa papa baal ma de Diouf xoolal ab eh, yéen seen kii kii kii daf noo nar a rey. Mhm. xam nga ni lii jamonoy Senghor ak lii wute na. Ah, fekk la sos loolu xamuñu ko. la sos loolu nag am ku ko daan entretenir ki ko daan entretenir mu ngi tuddoon Jean Collin. noonu ay bokkam baal. Mhm. ndax am na fi ay bokk Sénégal. Mhm. da wax bi loolu moo doon stratégie bi tubaab boobu moo nu def noonu tubaab boobu moo teg Air Afrique. pour que Air France di dox. comme il faut bloqué africains yi ba nga xam ne dootuñu mun a parce que tubaab dafa ñu jox indépendance gis ne africain yaa ngi naaw. 1961. africain yi teg Air France. mu ne Air Afrique mu ne yee ñii ñu ngi ñii dañu nar a départ. Mm. mu am ñaar ñoo xam ne ñoo doon def ngeen baal ma le sale boulot. couper leur envol. xam nga ñu doon def le sale boulot. c'est qui mm-hmm. au-delà de Jean Collin ak les représentants. Mm-hmm. c'était Léopold Sédar Senghor hélas feu na ma ay njabootam baal ak feu Pour ñu téye Afrique c'est un euh, feu Houphouët-Boigny qui va jouer le jeu. Euh, je vous avais dit que les Afrique qu'un Africain ne peut pas gérer une compagnie d'avions. On va chercher un bon français. C'est ça le drame qu'on a vécu. Et ce drame-là di corroborer ak la personnalité de monsieur Jean Collin. Mhm. Non, je dis je suis pas d'accord. que moo xam comparaison la. Mhm. wala métaphore par rapport à la personne de Ousmane Sonko. ça n'a rien à voir parce que attitude bi Jean Collin amoon ak ña mu àndaloon ak seen doxalin moo jur Ousmane Sonko. peut-être par rapport ak puissance bi xanaa puissance bi nga xam ne Jean amoon na certainement. li ñoo wax nii yëpp nag li ñoo wax nii yëpp amaana biir Walf boo lire article bi en dans le fond. Mm. peut-être daa ci fekk loolu. Mm. mais une chose est Mm. légitimement. mooy Jean que c'est légitimement c'est lui kii mm. kii du Jean Collin. kii ah. kii doomu Habib Thiam la. waaw kii mm. euh, Thiam. alors <clears throat> Jean Collin ab tubaab ba weex tàll. <laughs> ma wax la benn affaire. moom ci journal bi. gis nga gis nga gis nga Sénégal yàlla ñu yàlla suturaal. Aïcha ñu ngi ci benn tournant boo xam ni faw nu gis nga yi Seydina di wax ni problème yi. maanaam bu ko waxee pare foog ñu jël ko au sérieux rek téye. léegi boo téye rek foog par exemple ban heure jot huit heures nangam. ah mais j'ai écouté Seydina là tout de suite là mais ça c'est un cas mm. li muy expliqué nii automatiquement ci journée bi. Mm-hmm. mu am résultat. Mm-hmm. xaw ma ndax comprendre nga. Mm-hmm. bu bu ñu jàllee ci boobu suba. ñu gis beneen ñu nekkaat ca loolu. fokk nguur bi réussir loolu. te loolu moo war a nekk challenge bi. Mm. mais tey. sur cette question la Jean Collin kii Jean Collin Njombe yi mu def ci dëkk bi ay. bu bu bu ñu sax jéem a dem ci sens boobu. Mhm. il était super méga terra puissant Abdou Diouf moo jëngu 1990 teg de côté. da nga wax bi pour mën a dem dans un autre sens. Mhm. le Sénégal à la baraka aujourd'hui mhm. d'être souverain léegi nag xeex bi fi mu nekk nii au la de tout mu ngi tàmbali. ay xeex boobu di tàmbali nag daan nu jaar ci suuf. jaar ñu ci wet. Mhm. jaar ñu ci kaw jaar ñu fu ne. Mhm. faw ñu xarañ bokk booloo. Mhm. mais mais en général ah, comme comme ni nga ko waxee aussi en général aussi tubaab bi aussi bu fekkente ne eh, dàq ngeen leen par rapport porte eh, jaaral ci par la fenêtre comme ni gars yi di waxee. Euh, te te comme ni nga ko waxee gis nga Assimi Goïta. oui parce que dem finalement bu ñu ne koy réussir parce que dàq di leen. bañ leen dàqee actuellement ni ñu ngi commencé jaay si yenn politiciens yi moo tax mu jëli décision wax ne lépp loo xam ne activité politique dama koy aj dama koy suspendre gars yi coow mais xam na fu muy waxee mhm. en général les hommes politiques dafay yomb léegi nag le fait que Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko nekk ci pouvoir ça fait ça presque deux mois defuñu visite mhm. maanaam jóguñu fi dem France pour rendre visite ku ci mel ni Macron kooku problème la comme ni nga waxee moo tax effectivement comme ni nga waxee gars yi war nañu doon ay njaacaar bàyyi ci xel <laughs> parce que français ils sont très forts. ils sont forts waaw parce que. Euh, te dañu am capacité man léeg-léeg ma toog ba mu yàgg ma ma ne ak sama ay ndey ndeysaan xam ñu dañoo limité. Hmm. ma tiit ma ne ay waay ndox mii nii tubaab yi di defaral nu kaa naan. Hmm. di ko sangoo. Hmm. te tubaab taxaw xool ñu ne yéen seen population dañu commencé bëri ah yéen il faut ngeen limiter seen population. jël ko yokk wax bi. ak scandale yi. Oui. Ça c'est autre chose. sa ah, à dire que c'est-à-dire que mais, mais, mais je dire a pire, c'est-à-dire que il y a deux choses yoo xam ne dañu fa tey xoj ñu fa. Hmm. notre téléphonie. notre téléphone. ñu ñuy déglu bis bu minute par minute. Hmm. déglu làkk yëpp di xam li noo wax. Hmm. di nu dinu xool. di xool fu ñuy dugg fu ñuy di xool suñu lépp. mais dañuy jox ndox ñuy naan ndox mi. ak leneen ak leneen ak ak liñ fi yor ci ay chantier tout ce que vous voulez moo tax. il faut énormément de stratégie pour mën ci génn. mais ndox moom dafa doy waar euh, ndox moom. Aïcha dafa doy waar même les médias sénégalais. dañ ci war a jàpp aussi c'est dommage. les médias sénégalais médias yëpp laa la wax. faw ñu ñu sore. ci gis-gis ci gis-gis. faw ñu dépassé fi ñu nekk nii. du ñu sore parce defante moo leen sonal. Ah, kon nag non c'est vrai parce que aussi quoi qu'on dise bi amul sens defante moo sonal ñun dañu war a ne pour jëm a teg nekk ci lii presse bi nekk ci lee lee. <laughs> kuy yéeme na li ngeen nekk quoi. am benn ñu ngi saluer bu baax a baax taxawaayu Dame Mbodj ak Clédor Sène. waay ci littoral bi. Mhm. wax dëgg yàlla ñu ngi koy rafetlu. Mhm. Euh, mooy le fait que président Bassirou Diomaye Faye jël décision wax ne lu jëm ci littoral bi lépp loo xam ne travaux la dañ koy arrêté. Mhm. li ko waral mooy actuellement lépp lu fi nekkoon suuf gars yi jël nañ ko daal di koy jox ay borom jox ay borom alal ci diggante bi nag dégg nañ fi benn journal wax na ne actuellement ni chantier yu commencé waat na li ni mel moom mu am fële ci mbuurkaat loolu tey jii boo ko doon jàngat nañ ko mën a jàngate problème suuf soosu euh, xam nga xam nga euh, gis naa ñoom Clédor ak daam li ñu def dem macha allah euh, ils ont fait le travail de la presse. la ils ont fait ce que nous nous devions et ils le font ils l'ont fait ils l'ont bien fait euh, xam am na am na loolu sax lu ko jiitu euh, Pape Alé Niang defoon na ko yaa naa ci ginnaaw ou deux ans bu ma juumul euh, wane li xew ci littoral bi ak li ci nekk yëpp ak li xew ci sunu sunu foncier. Mhm. mais xam nga ngaf xam ngaf. Mhm. Seydina xam nga luy ngaf. mooy foqale gu ëpp. foqale gu ëpp. koo xam ni moom kenn mooy tiit fifi. Mm. moo la ngaf. moo tax olofanaam bi ngaf ngafi. waaw moo wax di ngaf ngafi moo nu dal moo dal moo dal suñu yenn autorités yi on va dire pas tous ah pas tous ñenn ñi te ñenn ñooñu dañu am doole. dañuy signé wala signé lu mais kii nga xam ne moo nu tooñ dëgg dëgg dëgg dëgg. Mm-hmm. au-delà de de de régime bi ka jiite régime beeg yëpp xam nga kan la. Mm-hmm. c'est l'administration sénégalaise. Mmh. kay signer autorisation de construire. Oui. cadastre domaine. Mmh. impôt te mm. ce cercle là. Mm. impôt domaine cadastre euh, c'est-à-dire trésor, trésor mm-hmm. administration là ñoo ñu tooñ. en mm. partie domaine national yow ñoo xam ni ñooy dox ci loolu fu ñu jàppee ñee ñooñu ñaata lañ ca am. affaire bi dafa jaxasoo. kan mooy signé corruption bi ban niveau la toll fu kawe la ne. gis nga policiers yi ak gendarme yi ñuy wax nii ci mbedd mi nii c'est rien comparé ak loolu. corruption bi am dans la presse am dans la l'enseignement dans la médecine am non c'est rien comparé ak loolu corruption bi bi criminel mooy bi jëm ci suuf si te ñooñu ñi def du n'importe qui. du du ñoo xam ni du benn bàyyi asar buy dox nii ci mbedd bi. ñooñu ñeneen lañu. te fi mu nekk nii nu ngi ne xuum doo leen dégg doon gi bu ñuy xool télé bi nii sax day boo xefee ñu zappé wala ñu yekk ñu lu mel ni xeme. dëgg te ñoom ñooñu kenn xamul leen ñu ci ëpp. Mhm. ils sont dans l'administration. ñooy signé ñooy ah monsieur le ministre non mais loolu du problème mën naa la ko réglal ah non ça c'est d'ailleurs on a on a des xam nga boo demee fële on a foofu am nañ fa ay hectares ah. mun nañ la si ça le drame. Mhm. ñooñu ñooy dugal ñëpp. parce que bi. seyd naa bu ñëwee bëgg ko yàq naa nommé nañ ko ministre mu bëgg ko yàq naa ñëw neen il faut lépp jaar yoon et cetera dañ koy glissé loo dañuy jékki-jékki non monsieur le ministre oui vous avez raison parce que vous savez foo vos collègues ñi fi nekkoon aussi ñun xam nga ñun lu ñu sant rek la def nga gëm ko wóolu ko téye fa mu commencé di naxanteeg yow bu ñëwee tey neexal la yii kii ñëw ne la boo xamee sax mu génn mbokk mu génn bokk affaire bi neex nga bien nga nga am ci moom confiance mu dugal la ci guuta parce que mooy ñëw ne la euh, monsieur le ministre euh, fële parcelles yi nekk fële am nga ci droit ah. yooyu moom bon yooyu moom c' est quand même légitime yooyu moom c' est c' est clean c' est kii nga dugg. <laughs> nga dugg ci dil bi. mos ko mu neex. nga am fa benn kii jaay ko xaalis dugg nga jaay am benn 100 millions 200 millions ministre bi nga xam ni 2 millions lay fekk wala 3 millions. am benn 100 millions benn kii daa ne ah c' est pas mal là. bu subaa ñu ne ko non mais mu dal ñooñu alal administration sénégalaise la. Mhm. boo ci boolee les municipalités. Mhm. diggante conseil municipal ak maire bi. waaw mais mais soo c'est compliqué. alors que fi ñu toll nii il faut qu'on aide ce régime là à aller dans le sens prompt bi gën a simple mhm. sénégalais bu nekk daa war a am kër. te loolu moo war a nekk logique bi. chaque sénégalais a droit à une maison. maison. sénégalais bu juddoo am nga droit cent cinquante mètres carrés par exemple. bien que tuuti ñu organiser ko. dëkk boo xam ne ñun matuñ daana à peine deux cent mille kilomètres carrés. on va dire cent quatre vingt seize mille nangam bon boo ko majoré nga ne deux cent mille kilomètres carrés wala deux cent mille nangam yaatu na xaj na fi. Mhm. mën na nekk bu la neexee tabax nii bu la neexee tabax nii. Mhm. habitat à loyer modéré lan la HLM. ak kan SICAP. nguur bu bon bii fi nekkoon nguuru président Macky Sall bi mhm. ñëw daanaka rey leen ba ñu dee dooleel Sénégindia ndax lan conflit d'intérêt dem leen laaj kon moom moom Sénégindia ku fa bokk ku fa bokkul ñoomi neen ànd ak indien yi teg seen ay kii ak les privés li fi ne kenn mënu ko wax soxna si. dugg ci mu nekk mu ngi ci mu ngi ci. mu ngi fépp mu ngi fépp habitat bi mu ngi fépp léegi imaginez difficulté yooyu parce que lan. on est tombé sur des gens yoo xam ni boulimie bu mooy ŋaf foqale. Ah. yow loo xam ni de un milliard de francs CFA madame vous pouvez vivre avec pendant plus de quatre-vingts années. Ouais. 83 à 84 ans mu nga si dund. vous dépenserez cinquante à soixante mille francs par jour. Ouais. un milliard. yàlla na yéex nga dem du jeex. Hmm. donc léegi yow ñëw ñu ñëw nela la bon kii jël na fii 6 milliards kii jël na fee 5 milliards kii jël na fii lii. doo ko teg bët doo ko gis yow daal dañ la naan lépp ci ay bien lay doon ay prête-noms et cetera waaw loolu nag soo amee benn nguur bu ñëw di ci dox di ko lijjanti te ñi fi nekk ñoo war a gën a xam loolu ñëpp te ñooñu ko gën a xam. Mm-hmm. ndax fa mbir ma sosoo fa problème ba nekk di impôt et domaine ñoom dañ faa nekk est-ce que dégg nga wax bi. Mm-hmm. am fitu taxaw ne ñun kenn mënunoo jiiñ ma jàpp ni kon dina yomb ci ñoom. Mm-hmm. parce que fa ñu nekk fa la njombe ba di déparé te ñoom kenn mënu leen a jiiñ. est-ce que comprendre nga. Mhm. kon la solution est trouvée moo tax il faut les soutenir. dans ce sens là. Mhm. ñëpp ànd ci te réew am na fu muy toll peuple bi ni muy jógee bu élection jotee. non peuple bi noonu la war a jógee xanaa xamoon ni dem bi ñoom dàmboo di def seen excursion bi waa dëkk bi dañoo waroon génn topp leen. ndiiraan leen naan leen ñu naan leen gis nga fii tamit bu ko defee ñay def loolu tiit. que comprendre nga. mais loolu sax moo war am buurkat aussi. te dis buurkat. Mm-hmm. dañu war a génn di ci ànd. naan leen fii du dëgg du yoon ñu justifier que expliquer que mbir mi delluwaat ci dëkku dëkku yoon. lu tax ci dëkku tubaab yi boo yoree ñaari kër ñu taxe la. benn bi bu la benn bi bu fekkee dañ la koy fay yow doo lijjanti beneen. doo foqale pour beneen kër looy doon ñetti kër ak ñeenti kër ak juróomi kër. waaye te si benn sa say njaboot ci benn dong la ñuy dëkk. léegi ñoom ñëpp conflit d'intérêt bi mooy naa defar immobilier. Mhm. c'est de l'argent location bi may récupérer nga defar immeuble boo xam ni euh, dix étages wala cinq étages chaque weer nga am benn dix quinze millions neex na de ñoom ñëpp ci loolu lañ ne. personne ne il manque même d'ambition la plupart pour dem dans le sens bon ok y a Auchan ici xaaral ma link ak Seydina ak Aïcha ñu créer beneen hypermarché. ñu fexe ba au moins ça nga immobilier du créé. problème yi bëri na de xoolal exclusif indien yi li ñu ma doon xamal démb. yow depuis quand ab sénégalais di manifester contre un employeur étranger yéen yéen gendarmerie sénégalais yéenay ñëw jàpp sénégalais yéen. yéen sénégalais yow waay waay yow. loolu amul France mën na ko yow bi yaa ñëw jàpp sénégalais bi yow pour le profit de l'Indien. mais loolu garaawul sax mais. vous mais mais mais chinois sax dañuy dóor sénégalais yow. bi am droit taxaw. mer am am droit taxaw buntu buntu entreprise am. ne kontaanuñu parce que lii ak lii ak lii non yow yow Sénégal bi yow yaay ñëw jàpp kayam yow yow gis nga bu doon Inde homme de tenue bi moom day ñëw jàpp étranger bi. Ah. Mhm. non ñun nous nous sommes mal barrés. non France gi sax mais mais mais mais Pa Assane li nga wax ni c'est moom ah <laughs> waxuma la sax waxuma la sax waxuma la waxuma la sax Sénégal gi mais demal Gambie tey ji Gambie bu fekkente ne am nga seen problème ak seen citoyen. oui mais jamono jamono jamono jamono yaay jaama bu ko xalaat. oui. jamono yaay jam bul xalaat sénégalais am problème ak ab gambien mais Mauritanie gi aussi sax bul xalaat ab sénégalais am fa ab problème ak Mauritanie eh. mais Sénégal mooy dëkk boo xam boo fi amee problème ak étranger et dañuy jël daal di koy duuma waaw te bu ñu waxante dëgg aussi indien yi ak chinois yi li ñuy def di sénégalais c'est extraordinaire mais jaam lañ leen jàppee mhm. dañ leen jàppee comme am na sax indien yoo xam ne yi am na indien yoo am bul sonn <laughs> ñun li ñu daal dafa métti Aïcha. en tout cas malheureuse, malheureusement mais am nañu euh, bon ba tey mën nañu continuer ah. mais bien sûr bien sûr c'est ça c'est ça euh, euh, Pa Assane. problème mu problème mu problème bi nga xam ne meeku nañu ko démb ah fële ci AIBD. Mhm. aéroport muy problème bu xaw a doy waar ah. oui parce que Transair. Mhm. moo affrété benn avion Air Sénégal. Mhm. boo ñu yàpp ci presque soixante-dix-neuf personnes yoo xam ne dañu waroon dem fële ca Mali mais finalement avion bi dafa daanu. loolu c'est euh, daaw daan wul sax mi dafa wàcc yoonam. raté am na onze personnes qui mhm. quatre graves. Mhm. mais maintenant mais problème bi ñuy posé mooy. Mhm. ay at ci ginnaaw président Macky Sall ak gouvernement am dañ fay créer benn genre manif ki benn benn genre xawaare. di féete comme quoi que ne <laughs> Sénégal xaw ma lan. <laughs> Sénégal internet changé nañ ko léegi créé ko te tuddee ko Air Sénégal. jënd nañ ay avions yu bees pàq jox leen ko. mais li gën a garaaw te ki nga xam mooy président Transair wax ko. te mu mhm. jaaxal ma mooy defe ne tey jii Air Sénégal bu fekkente ne dox na tey jii nañu ko leen ko santé ñoom waa Transair. Mhm. parce que bu problème bi am rek ñu bëgg leen a xarab. Mhm. parce que mboolem vol yi nga xam ne Sénégal Inter Air Sénégal mu ngi koy am mu ngi koy mu ngi koy joxe jamono ji ñoom waa Transair ñoo leen koy jox. tout nag on se pose la question. milliards yi nga xam ne état bu dama seetaan journal télévisé RTS bu sama xarit bi doon def euh, Ibrahima Diédhiou. jéeju hmm. on a fait l'ISIC ensemble. waaw macha euh, ma seetaan ma déglu mu mu def mu lancé benn élément Ousmane Ngari Faye defe naa Ousmane nu ngi leen di nuyu bu baax Ousmane def descriptif Air Sénégal wax jafe-jafe yi ci nekk wax ne bu fekkee ni que amuñu condition yi yi war. pour mu yemb pour ñuy def euh, ñuy desservir ainsi vaut mieux ñu yem ci li ñu mën excéder j' j'étais super étonné en même temps content j'ai dit ah bravo à la RTS chapeau. là ça va vers la dénonciation c' excellent. il y a un an. <laughs> les mêmes journalistes nous auraient proposé autre chose. <laughs> oui c'est le drame. donc aujourd'hui la logique va dans une autre la donne change après on non non ligne éditoriale mooy changé wala ligne bi la ñuy corriger. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, la RTS me dit que Air Sénégal, problème là, nangam nangam. Il y a la RTS me dit non, non, non, c'est flamboyant, c'est nangam nangam. Lolo moi, j'ai fait, j'ai fait réuni. Amak nyak, là nous aurons bolé, tu réuni. Mhm. Baye Hassan, tok bir wal fajri, wala bañ fay tok la wara yamale. Mhm. Ndax qui est fini? Leneen amul. xaw ma ndax dégg ma. tout à demuñ si loolu nga gis nit mu ne la ay bu ma defee nii policier bi daf may jàpp. nga ne ko xanaa newoo ci yoon. Mhm. mu ne ma ah kay ma ne ko nga yor sa oto yor say kayit ba mu mat looy ragal lu tax nga war a ragal. Mhm. tant que Sénégal génnuñ ci sensu wuyaay yooyu parce que wuyaay yooyu yàlla boo xefee mu mere mhm. la. daa taxaw ànd ak sa borom xam ni coono dikk na waaye di nga ko surpassé. di nga ko surmonté. nga jàll ci leneen. il faut que dans ce pays gis nga peuple peuple peuple dañu kaa defar. nga defar. maanaam defar drive ba nga xam ni regarde les enfants chinois asiatiques dès la naissance xale bi dañ koy jàngal entrepreneuriat mooy indépendance. comment trouver la solution. comment faire ñun boo suñu réew yi boo juddoo looy jàng fecc. étale. loolu la yaa xale. <laughs> ak yu ji. parce que parce que parce que leadership bi leadership bi mooy changer. Mhm. la donne. Mhm. quand il me parle de Air Sénégal kan moo yoroon Air Sénégal Philippe Bon. son métier c'est la photographie mais dugal nañ ko ci parce que soit di woy jàng na ko nangam-nangam certes mhm. certes kooku ñu ne ci jamono Air Sénégal xaalis bu dugg. noonu la kaa récupéré wuy ma Seydina. xaalis bu dugg da kaa récupéré xaw ma ndax yaa nga dégg ñu xam dossier bi. na ma waa ji tranquillement chaque diir chaque diir day ñëw récupérer xaalis bi. su récupéré léegi nag récupéré bi moo kan la. kan moo ko fi teg. l'ancien régime. ka jiite woon l'ancien régime. yow yaakaar nga kooku war a mën a ñëw jël xaalis te ka ne ca bopp ba du ko yëg. lii mooy sunu musiba maa ko kumba. donc Air Sénégal depuis Karim Wade à ah, maintenant Karim a essayé Air Sénégal tey fi ñu toll Sénégal mënul am compagnie bi mu fonctionner ni mu waree parce que ni mu ñun ñun mënuñu nekk benn dëkk boo xam ni amuñu une croissance à deux chiffres benn ñaareel ba ñu ngee fay cent milliards ak nangam. boo bu jegee cinquante chaque fin du mois boo ko calculer mu jox la cinq milliards par jour yoo war a génne di ko fay yow ñi ngi xam ñoo ñëw naan dañ lay jàppale ñii ñëw di jël say ressources naan dama lay jàppale nga war leen fay cinq milliards par jour nga ne damay am compagnie alors que la chose c'est quoi c'était d'avoir plusieurs pays ñu dajale seen doole am compagnie bu tudd Air Afrique mm-hmm. France xeex Air Afrique moo tax ñun suñu classe gi 10 milliards daal suñu làmmiñ duñ ko ci génne ci ñoom ñoo parce que ñoom ñoo ñu war a cëppe cëppewul na. quest fait Air Afrique am na doole ñu ne non lii arrangé wuñu ñu jaar ko ci Houphouët-Boigny ak Senghor. ak Houphouët ñooy ñi nga xam ne daanaka ñoo nekkoon à la tête de Air Afrique moo juróon suñu baay bi Cheikh Fall jiite woon Air Afrique au départ. Mm-hmm. après un autre de rôle ñu nekk ci loolu. di dem di dem di dem di dem di dem ba ñu naan Air Afrique am na jafe-jafe une compagnie qui a desservi pendant plus de quarante ans. waaye. dix neuf cent soixante et un ba deux mille mu nee nasax lan moo xew parce que population bi ni muy yokkoo. Mm-hmm. noonu la besoin yi di yokkoo. Mm-hmm. Mm-hmm. tubaab yi gis kaañ bi. gis business bi. ne non lii duñ ko bàyyi Air Afrique. ñu tas ka. tas ka la complicité toujours. des deux pions la Côte d'Ivoire et le Sénégal. le Sénégal depuis ñaar ñooñu. ñooy problème mu Afrique de l'Ouest et de l'Afrique en général. indépendance bi sax pour ñu jot ko Ahmed Sékou Touré da leen ne kaay la def suñu bloc ñun. ñii nañ leen fi génne décider ko by force. ñaar ñu leen ne non non non. ñu trahir bu fait dem daal ne oui je préfère être le premier cultivateur moom sax jiw góorgóorlu na foofu le premier cultivateur de la République de Côte d'Ivoire Senghor ñëw di poème <laughs> voilà notre drame. après nga ñëw ba fii ba toll moo tax je je je je digère pas euh, cette euh, corrélation entre Ousmane Sonko et et Jean Collin je certainement di bu ma lire article bi nag li noo wax ni yëpp certainement mu ngi ci biir. mais fi ñu toll nii Aïcha. Mm. fi ñu toll nii trans xaw ma Air Sénégalo Air Sénégal mënul dem mm. tant li war a nekk nekkul Seydina mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. pour nga am compagnie daa am doole quand les gens parlent de Ethiopian Airlines c'est un pays qui est croissance à deux chiffres. chiffres Éthiopie bi nga xam ne en 1985. dañ ko doon defal live aid. moo jur We Are The World. Mhm. ak ñoom Harry Belafonte. da nga wax bi. waaw ñu tey romb nañu. Rwanda rayante 1994 bañ naan ba ñun ñu toog Omar Pène di way Rwanda. wallaay leen dimbali. te ñooñu ñëwaat réew ñu. ñun kan la baax. génocide bu métti ba. jamono bi ñu toll nii. avec ce nouveau régime là. kasi ànd ak kasi àndul faisons bloc. à leur côté. pour les pousser à réussir parce qu'ils doivent réussir by force dañu war a réussir et pour loolu am faw ñun ñu def bloc l'information la bonne information di susurré wu di dem di nekk mhm. lépp loo xam ni lobbying la ak teg xel ak dóor nu pousse ko de côté loolay dëkk mais est-ce que loolu dina mën a dina mën a yomb quand même lan mooy mën a yomb faire bloc ah mais bloc bloc mooy nekk su fekkee ne intérêt pays bi parce que parce que tamit parce que tamit bloc fekk dafa bari trop maanaam kii ñu fekk lobby yi ñu fekk dafa bari trop. il faut les désengager te rek du set du rek si benn domaine. nekk na ci nekk na ci ci presse bi nekk na ci homme. ci ci ci ci ci religion bi. nekk na ci li nga xam ne moom moo di euh, classe politique bi nekk na aussi ci yeneen secteurs yi malheureusement c'est un bloc bu nga xam ne dañ ko bàyyi mu màgg encore que on est on est infiltré c'est très difficile c'est très très difficile mm-hmm. c'est c'est a wax kenn mënut wax lépp on est infiltré mm-hmm. te kenn mënu wax lépp mais faw nag ñun ñu dem ci ci ci te loolu leadership bi mën nañu ci dimbali. faw mu am lu ñu imposer. imposer loo xam ni day ak day commode. Mhm. ànd ak ñun. Mhm. faw nu nangu suñu ndox. Mhm. faw nu nangu suñu téléphone nangu suñu lépp sax. faw nu nangu suñu yëf. léegi nag nan lañ kaa nangoo lenn rek kay mën a tax nga nangu ko. xam luy tax. tey quand tu as deux millions cinq cent ou trois millions de sénégalais en Côte d'Ivoire. voire plus. ñu tas diggante Afrique de l'Ouest jëm jëm ba Europe ak la ca des. Mhm. Sénégalais yooyu yëpp doo leen sacrifier parce que am na décision yoo xam boo ko jëlee mën nga leen lor. mais de façon mhm. mën nga ci dem la meilleure façon d'y arriver c'est la sécurité il faut se sécuriser. Mmh. et la meilleure façon de sécuriser c'est de faire de sorte que ki nga xam ni moo la tiim ca esclavage ba tey ba sànq. Mhm. am wujj foog muy sentir wujje bi. foog France di yëg ni am na keneen kuy wujjeeg man. waxuma ay Chine ay Turquie yi business suñu kaw de non ay Inde kii non je parle de mu sentir sécurité militaire. moom nga ne ko say base. comme moom moom moom la Poutine di proposer Mali instant bi. je te dis nga ne kii ak ay base kii ak ay base a ne. cool wala jël say bagage dem. te cool bi mënu ko parce da ngay foog ni da nga leen di romb ñu ci wakkaam nii seen camp boobu ne dara xew fa ñu ngi toog di ñu ngi liggéey. suñu kaw vingt quatre heures sur vingt quatre ñu ngi wax seen ay nit ci seen ambassade di la jox information chaque jour Sénégal. Mm-hmm. lii ñun ñi ngeen di toogee di def seen revue de presse yi noonu la allez demander nationaux aux bi binationaux. Mm-hmm. ku ci am nationalité française xam na li maa wax. dañ lay message Sénégal boo boo xëyee bul jaar mbedd bi jaaral mbedd bi ni ak ni ces gens sont organisés. organisés. et dama naw France ci loolu ils sont intelligents dañu bëgg seen bopp. ñun kan la ñu bëgg suñu bopp. ça le problème hein. quand on on va semer nous ñun kan la ñuy ci suñu ay yëf quand tubaab dinañu ruube. RFI ils ont créé rajo Fulbe. loolu ruube la tudd. ruube moo la mbirab waa ba ji tubaab dalay jaxaseeg sa xeet ne yow yow ban xeet nga mu ne ah yow ki yow ban xeet nga ah ñi ñoom lii la ñuy def seen culture lii la ñi seen aada lii la di ko développé di ko wax di ko kii loolu xam la mooy étincelle bi mu lay téewee suba boo dof toftoo mu taalal la ko mhm. day ñëw doon bu doon seytaane dundab lagara lay dund seytaane. day comme sax tubaab yi dañuy làq loolu yëpp nag boo ko xamee. Mhm. sécurité da ngay sécuriser wu. sécuriser sécurité bi njëkk sunu borom <laughs> di istifaar di ñaan suñu borom. beneen sécurité bi mooy militaire oui elle est militaire. Ah. en tout cas euh, Fassane merci. chronique bi tey amati na solo ah. déjà defal nga ñu defal nga ñu benn historique bu am solo. noo ko bokk noo ko bokk revenir un peu quand même si historique boobu lee. ñun ay ñun ay xale lañ liñ ci wax tu dara comparé ak li ci kilifa yi mën a wax. mais certainement dans l' article ñu ci wax dix wax nañ ko ca mille. Mhm. comparé ak man mi ngay xam ne yaakaaroon naa ne que ruubekat ba fa mu commencé ca Abdou Diouf la woon ndekete yoo c'est au delà tey ji laa koy soog a xam. donc lor nañu de. historiquement aussi euh, tey jàngat nga defal ñu benn jàngat bu am solo. quand quelqu'un déporte de 300 mhm. kooku noonu la te du la mës a bëgg. Mhm. kooku nga dem xeexal ko 1939 cinq xoolal démb. dem lañ doon célébrer seen 1939 45 ba ba guerre ba jeexee en en Europe en France. Mm. gis naa Allemagne di célébrer français di célébrer wowuñ ci benn noir wowuñ ci benn africain. image bi li ñu laa woon yëpp der bu weex la. Mm. ñun kan la ñuy yeewu. te tirailleurs yee fi jógoon. ñun ñoo leen xettali. ba guerre ba jeexee ñu nangu seen ay tenue ñii ñu rey leen Strasbourg Sénégalais yaa ngi fa tëdd fees fa del ñu faat leen. caare 44 def leen nangu seen ay tenue dem fekk seen waye waye tapet yooyu dawoon jox leen tenue yi ne leen acca kaay leen défilé ne ñoom ñoo gagné guerre bi. quand quelqu'un est si hypocrite et mesquin mécréant il faut s'en méfier et prendre les devants. en tout cas jaajëfal la <laughs> bu baax a xamuñu loolu malheureusement vraiment bu woon yéen day làmbaay day ñaaw on fait un clin d'œil à Cheikh Tidiane Gomis tey qui nous a bond mais di ko nuyu bu baax a baax ziar également euh, toute l'équipe du du réveil du vendredi euh, ñu koy waxatee euh, xale moom Khady Diéry Fall aussi namm nañ ko Salma Ibrahima Fall aussi tey daf ñu daf ñu kii daf ñoo fobon mais ñu ngi koy def en gros concours xam naa ci kanam jàmm dinañu s'enquérir de ces nouvelles jaajëfal également toute l'équipe technique ñu doon accompagné depuis 6h30 ñu ngi woon ak yéen euh, Serigne Aliou Keita du côté de la régie le jeune réalisateur maa ngi lay nuyu bu baax a baax Bintou Fall maa ngi lay jaajëfal tonton Pierre pour le son je vois Pape Maodou Faye euh, euh, ak euh, Kéba de l' autre côté yi ñu doon accompagner ci caméra bi ñu ngi leen di ñaanal bëccëgub jàmm nuyu également l' équipe de la radio pour la synchronisation c' était Famara Diédhiou DJ Dems ak Eumeu Gueye équipe digitale bi aussi tey gisuñu ma nekk en ligne en direct xawma lan la mais bon ñu ngi leen def un gros coucou di leen ñaanal bëccëgub jàmm jumaa mu baax très bonne